taala wa barakaatu toogal bu baax mbokki jullit yi mbokk taalibe yi mbokk mbokk gi yépp ñu ngi leen di nuyu nuyu ziyaara leen nuyu góor ñépp ziyaara leen jigéen ñi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziyaara di ñaan yàlla yal na leen yàlla may barke njaboot yal yàlla lafal leen cat yal yàlla cat yal yàlla def cat siixlu seeni njaboot jamono bii ku di ci nekk war nga di ñaanal sa njaboot njub ak mbaax ndax li yàq nit dafa yomb beneen bi ci des moo di li tax ma jiital ci jigéen ñi doom moom bu yàqoo jigéen lañ koy puus bu baaxee ñu puus ko góor bokk kook ñëpp ndax da dégg liggéeyu ndey añu doom donte nag wax buñ mën a firi la waaye du ñu tax a jóg xanaa xam nga ko waaw kañ man léegi ñiy dund rek lay site Aliou Anne mu ngi fii Pikine rii diis sorewul kër Abdou Hamid Sarr Aliou An moo daan yor mbuus bu sëriñ Amat Njaay aaroot moo daan toog nii na Jóob toogee ci sama wet ci wetu sëñ Amat Njaay aaroot bu gaay yi di si kër am xaw yi sëñ Amat Njaay da ko daan wax ne su ma la defee nii rek jox ma benn bul mooy am na am xaw yi ndax moom day tayal di jël benn bul di sikkat dafa na àll aliwu su ma la defee nii rek jox ma benn bul maanaam su ko concoo rek moo xam ne jeexal na am xaw yu aliwu jël benn bul jox ko nii rek la ko doon def aliwu aan mujj wàng saako bi biñ taalee lamp bi gis ne góor gi daanaka moo si kër yépp duma tudd tur xam naa ko it nag man dama man dama baax de waxin la rek na waaw ndax su ma ko tuddoon fitnaay am rek dara lañ ma mënalul dara lañ ma mënalul tous mënaluñ ma dara ndax saagawuma kenn xasuma kenn man la neex rek may asaf tur yi xamuñu loolu man sama mbaax la rek ak bëgg jàmm waaye su ma neexoon gis nga nit ñi nañ xam ne bu dee ay rek maa leen ko ëppale téeméeri junni yoon man duma ci doyal moo ma tax tuuti te moo ma gënal kaay ñu lekk billaahi wallaahi tallaahi dama di jàmm bëgg jàmm rek waaye kenn ëpp ma fi ay kenn ëpp ma fi fit Sénégal fii kenn ëpp ma fi na ko ñëpp xam su ma nee patt rek am na lu tax billaahi wal kitaabi su ma nee patt rek am kilifa a waaye ku ma fi rokkin rek mën naa laa sabañ bilaa xilaaf nag ku ma fi rokkin rek mën naa laa sabañ ku ma xuri mën naa laa wokk ku ma wokk ma xuri la mais amul njëriñ ne fi di defanteeg nit ñi amul solo li am solo mooy am jàmm jàmm ci la lëpp xam xaj lii ñuy def jàmm ñu ko may su jàmm amuloon danañ toog fii sirigale sañ nañ fa lii imaam bu mag boobale ci biir jàkkaam la ko bomb fekk ne ko tur fa la yëpp imaam Lamine Diop xam na ko mais nit ñi nañuy wootal jàmm jàmm dara yemul ni moom te Chérif Ibrahima nag tooñul kenn nag dëgg-dëgg man kenn te duma tooñ kenn nit nag góor googu xam naa ko waaye du ma tudd turam moo jékki-jékki ne ñeme yàlla nag weesuwul ne yaa si kër lii yëpp loolu ñeme yàlla la sa maam a ngi toog sëñ Amar Ndiaye eh, sëñ Alaaji Yaqubu Fall ah ñépp xam ki muy wax sëñ Amar Ndiaye aroot addu moo jur sëñ Abib Ndiaye mooy xalifaam léegi moom lañ doon tuddee waaw kañ mooy turandoom doomam Mouhamed taawu sëñ Abib maa ko may soxna fii daaw fi géej yéen ñépp xam ngeen ko waaw man kon li may wax leer na Mouhamed maa ko may soxna mooy taawu sëñ Habib sëñ Habib mooy taawu sëñ Amane Ndiaye Aroon tabaarakallaahu maa ngi ko may ko xale bu ñuy wax ndey kelli yéen ñëpp xam ngeen ko ndey kelli Diop ndey kelli Diop maa ko may Mouhamed man la ko bàyyam bàyyale biñ ko koy may sëñ Habib jaaroo fi sax daf ma ne sa doom la wéele problème sëñ Amane Ndiaye Aroon addu ne ko ah, lu dul sa cër nag bu ca wax. xanaa xamoo ne man dama am tayul tilaawati waaw man man Njaay dama am tayul tilaawati su ma nee nii kaamil la su ma nii kaamil <laughs> ndax dégg ngeen li may ah ne ko man man Njaay Aroon nag dama am tayul tilaawati man su ma nee nii kaamil la su ma nee nii kaamil la maanaam bu geesoo nii am na baqara benaasi su geesuwaatee nii am na baqara benaasi demal nga laaj sëñ Habib ñu laaj ko ne ko góor gi xanaa danga naan alif jinnati wa naas mu ne déedéet faatiha lay tari alif lam mim bennaas yi duma tëb sidd duma jël bind sëñ Aman Njaay Arut te xam ngeen sëñ Aman Njaay Arut kenn la respecté woon ci kaw suuf ragal ko xam nga mooy kan Alaaji Abdou Aziz Dabakh kon kuy Cheikh El Hadj Malick sëriñ Serigne Babacar Sy Alaaji Abdu li muy dangereux dangereux kenn la ragaloon ci kaw suuf Serigne Babacar Sy te ñëpp xam nañ ne Alaaji Abdu ponkal la de min kibaaril awliyaa li may wax si nii ci Seydul Hadj Malick la Lamine Diop mu ngi fii mooy amoo amokat dem leen ngeen laaj ko fan yi alaaji Abdou Aziz war a génn àddina nee na dafa gënt gis Cheikhul Hadji Abdou mu sol tenue général fiñ ñu ko denc foofu tey mu ne foofu la ko gis mu taxaw sol tenni général rek benn jékki-jékki rek mu mel ni fusée ko yëkkati mu jëm asamaan nee na bi muy dem mu ngi dégg muy wax naan yaa xaaliqal iqaa yaa xaaliqal iqaa yaa xaaliqal iqa imaam Lamine Diop ba tey baat boobu mënu ko firi nee na xamu ko gisu ko ci grammaire te imaam Lamine Diop ñi ko raw ci réew mi bariwul de il faut dire la vérité de alkaati la woon de waaye billaahi imaam Lamine jóob ñi ko raw ci Sénégal bariwul baat boobu ba tey xamu ko maa nag du ko xam ndax min min luxati suraaniya te ci grammaire suraaniya la bokk làkk boobu ca àllaaxira lañ koy làkkee te du ñëpp a koy làkk ndax àjjana arab lañ fay làkk mais benn benn at ñooy làkk làkk boobu El Hadj Abdou Aziz ci la bokk foofa dafa am ay code aussi imaam Lamine Diop dem leen ngeen laaj ko yaa xaaliqal iqaam baat boobu xamu ko ba tey te imaam Lamine Diop lu mu xamut xam ko yombut de te lancé naa défi ci télévision laay wax ku xam yaa xaali xel ixaar rek yónnee ko télévision bi daañu la tontu rédacteur rédacteur en chef yaa ngi fi Abdoul Aziz moom ku ko bind mu tontu la Abdoul Aziz Seck mooy technicien wu télé bi Omar Diop bii ku ko bind dana ko balancer parce que ku nekk ak sa domaine dana ko balancer Abdoul Aziz mu tontu la yaa xaaliqal iqaa du lugatul arabiyya imaam Lamine Diop moo ko gën mu ne maa ngi gis Cheikh El Hadj mu ngi sol tenue générale fi ñu ko denc tey matul tuuti la génn àddina ñu denc ko foofu encore ah imaam Lamine Diop ku baax la de ku baax la sëñ Amane Ndiaye Aroon nag xoolal ni mu garaawi te El Hadj Abdou rek moom pour moom sëñ Abdou doo ngay nit <laughs> sëñ Amane Ndiaye pour moom sëñ Abdou doo ngay nit. sëñ Abdou rekk la ragal ci kaw suuf ak alaaji Habib si moom la tuddee sëñ Habib ndax fële mu sajj ci Bushra bi leen bi ko jinne yi jommalee foofu ba jommal sëñ Habib moo dem toog fa bu Cheikhul Hadji Malick dëgg la wala du dëgg am na ci boo xam ne bi jinne ji riiree ba yegg si ñoom ñi xam nañ li may wax dafa jékki-jékki rek ne dal kenn xamut fu mu fu mu yem sëñ Habib si moo fa dem toog fa aar ko ba mu ne cocc mu jël bagaasam dem ñibbi caatu Seydul Hajj Maalik waaw nii lay raamee ba ne dagaj ci Maodo ndax Maodo géej la te dex la dex moo gën a garaaw géej ndax dex moom day neex booy lab dalay bett <laughs> xamuñ ne dex a gën a garaaw géej dex booy lab dalay bett ndax neexaay gaa tax ak cekkaaral moo tax dalay nax booy lab rek dalay bett Maodo kenn xamut lan la insha allah yowmal xiyam nag dinañ xam kuy Maodo te fii sax xam nañ ko ba noppi wax lu la neex ak dof dof lu rek waaye fii moom xam nañ ko ba noppi si ñaman njaay gis nga ko maraam la dugg ci sëñ amat ku ko jur ab du njaay moom la soose yi daan wéy naan abdu njaay maa nii nii mañ sa maane maa nii di ko ko xalamal buur la woon da daan gis ku ëmb mu ne indi leen ko ñu indi ko mu xotti biir bi gis benn paa buy romb ak sikkimam mu ne indi leen ko ñu indi mu jox benn xale lañ set ne ko fool ci sikkim bi ba ñu laaj ko yu métti yi nag mu ne ah lii gën a yomb de jigéen bu ma fi wax ne xotti leen biir bi rek safara la waroon a jëm ma teggil ko ko paa bi ma fa foyee sikkimam it njaalokat la woon ñu war ko duma ca safara ma di ko ko dindil fii Senghor moo ko nax ba yóbbu ko Preya waaye ne man man li may wax xam naa ko Senghor ko nax ba yóbbu ko pare fa la faatoo ca Cap Vert Cap Vert bi fa lañ ko denc Senghor moo ko nax parce que dafa ne kii mënta nekk moom ci réew mi am na lu muy doxale moom nguuram dana ko ñàkk ndax xam na ne waliyu kaamil la mu nax ko ne ko yaay yilif kam fële boo demee yaay yilif Preya yóbbu ko fa jox ko fa doole ju bari mu toog Abdou Ndiaye boobu xam nga ku ko jaaxaloon Chérif Yunus Chérif Yunus a ko defar moo defar Abdou Ndiaye <laughs> Abdou Ndiaye dafa ne ko jàkk xool ko xool ba mu yàgg ne ko Abdou Ndiaye mu ne ko la béyka ay dara mu ne ko xool bi ma la xool sar na ba ci say sët jógal nga ñibbi defar naa la Chérif Yunus ne ko xool bi ma la xool sar na ba ci say sët jógal nga ñibbi defar naa la Abdou Ndiaye Chérif Yunus moo ko defar Chérif Yunus ma wax la ku ko defar Seydul Hadj Malick ah ndax kaarang la nekkoon Chérif Yunus fa njëkk a dëkk lu yàgg daan jaay ay xar ak piis li may wax nii Cerno Yaxya li moomu ko nettali maam maaska fekk ko fa maam maaska bu mag dinaa ci ñëw diggante mu Maodo fekk Chérif am kum jaayoon xar xam nga Sénégal dañ yàgg a ñeme yàlla shérif di wëññee ko di fayee ko ñim lebaloon góor gi ne ko mosoo maa lebal ah, mu yegg ca ba jàll ko baat maam maska yem ci ne ko gaawal nga fay shérif te baalu ko lu ko mooy daañ la rob tey ci ngoon de mu ne ko 9 ci subaa jot mu ne ko balaa tàkkusaan bul jant bi di lang boo fayit shérif te baalu ko danañ la rob waaja daw dem génne ji alal ñëw fay ko sukku raam shérif ne ko toogal fii ba jant bi so ndax boo fi génnee rek balaa jant bi di so di dee waaye fekk yaa ngi toog ci sama kuuru kaara gii nag malakul ti du fi dugg pour jël la ndax dama ne fu la fekk fu dut fii loolu laa ko wax na jël sa rox heure sàngam kon fii bokk ci toogal <laughs> Chérif Yunus Chérif Yunus rek bu ma la waxoon martabaam ci yàlla nga yéemu te Chérif Yunus Maodo lay muslu maam Maaska ne ko Chérif li yëpp yaa ko yaa ñu ko teg yow Chérif nga waliyu nga abbaasi nga yii ngay def di ko nëbbatoo bàyyi ko yii ngay jaay xar yi ngay jaay ak piis yi ngay jaay di ko nëbbatoo ba ko maa ngi lay ñaan danga ciy lor doomu aadama yi waaye doo leen defar te yow njëriñu àddina nga bàyyi ko nga dem dëkk bu ñuy wax Bangeer ca Casamance nga toog fa loo am ci yàlla dina la fa fekk lu yàlla am dina la fa fekk lii tax Cherif Yunus dem dëkki Bangeer maam maska moo ko ko joxoñ dinaa ci ñëw nag ci diggante mag Seydul Xaaji Maalik Chérif Yunus bu masaan mer kaala gi lay dindi booy xool bopp bi faatu dafa leeloon booy xool leel bi di faatu su la bëggee defar it day dindi kaala gi ne la xoolal bopp bi boo xoolee ba noppi mu ne la teg ci sa loxo tëdd na ca Casamance daf daan def bu ko kenn roy du lu ñuy roy taalibe cheikh yi nag loo wax ñu jëm ko essayé mais ku nekk ak sa cër daf daan def bu jullee tàkkusaan ba noppi day génn jali bi di ko kooraawal kooraa yi ba timis ñu door a julli timis wadifa sikkar julli gee mu door a fat bés nag ñu julli tàkkusaan ba noppi lalal ko basang yi ci biti comme buur la woon rek tegal ko ngegenaay yi jale bi commencé di xalam shérif génnut ba timis jot ñu julli timis wadifa shérif génnut mu continuer di xalam ba gee shérif génnut mu continuer xalam ba vingt 22 heures shérif tël bunt bi génn jali bi géwél bi doon xalam ni ko ah shérif lu la kenn du laaj nag dinaa la ko laaj ndax lii mosula am mu ne ko lu xew mu ne ko ah tàkkusaan ba léegi nit ñaa ngi fi génnoo lu xew mu ne ko dafa am waliyu bu mag ci awliya yi ba faatoo ba tey am na nangami weer ndekete duggut àjjana mu ngi diggante àjjana ak safara laaraaf fa la ko yàlla teg dañ ko yéex a gis nag waaye alaaji Maalik ko gis wax ñu ko li may wax nii it Cerno Yaxya moom moo ko nett lay nuyu bu baax yow rek laa doon nuyu de Fall yow rek laa doon nuyu yàlla xam na ko ndax baayam wëliyu la maamam wëliyu la te kii may waxtaane moom it mu ngi fii door a ñëw ci xadara bi dëgg la wala du dëgg mu ngi door a ñëw ci xadara bi tey te woowuma téléphone ne maa ngi ñëw mayit woowuma ko téléphone kon yàllaa ko indi yàlla mi ko indi nag Babacar Lo waaw kañ yàlla def nag mu ñëw di doomi waliyu ma war a waxtaan ci waliyu bu dal ni Seydil Hadji Malick te maamam bokkoon ci ñi ko dar kon ma ubbee ko ci moom jekk na lool ma ubbee ko ci moom kuy Seydi Hadji waaw kañ waxoon naa leen ne incha maa ngi leen di wax njàngam ni mu ko incarné duma ci taxaw lu yàgg pour xale yi jàng te période ek ouverture lañ toll ak a baax sax fii ñu toll nii la baaxee xoolal fi ñu toll période ouverture la des classes ñu bañ ko benaan ubbi tey jàng tey Issa Faye du dëgg loolu la ñëpp bëgg man mii loolu laa bëgg ñëpp loolu lañ bëgg ubbi tey jàng tey ndax xam-xam mooy yor réew Seydul Xaaji Maalik Sëñ Abdu nee na bi muy jàng mosu ci boole ay caaxaan nee dox mbokk sax nanguwu ko mu ne góor gi Abdu Booli Faal mos na ñëw di ko seetsi ci daara ji am na fa ñetti fan mënta gis Maodo nee na saa bu xëyee rek Maodo xëyee dina bokk àll wa téere yi ñëw ne ko salaamaaleykum teg nee na ba ñetteeli fan bi sëriñ daaraam ne ko ma Malick faa wàddi mu ne ah mu ne ko sa mag ñëw na fi bu ñuy wax ab du bool a bokk benn ndey dama bëggoon nga dem nuyu ko te bu fa yàgg mu ne Seydi Hadji Malick ñëw ne ko salaamaaleykum nee na mu ne ko aleykum salaam dañ ne ko ah, Malick Malick ñetti fan yi yàlla maa ngi ci kër gi xanaa xamoo ne maag yow bokk ndey mu ne ko xam naa ko de gaawal li ngay wax ndax sëriñ bi dafa ma ne bu ma fi yàgg mu ne ko xanaa xamoo ne ñoo bokk ndey maag yow mu ne ko xam naa ko mu ne lu tax nga di ma romb rek asalaamaaleykum waaleykum salaam mu ne ko sama sëriñ moo ma wax ne kuy jàng du dox mbokk àll wa rek mooy mbokkam fii ma toog di wax ak yow aw ma mbokk sama àll wa mooy sama mbokk gaawal fukki minute la ma may ma dem loolu du personnalité ñim jaar ñépp fu ne jàng na fa fu bari boobu bind na ko ci ay mbindam téere eh, xam-xam bu ne it am na ci ijaaza alxuraan moom am na ci fanweeri ijaaza ci alxuraan alxuraan dafa bari ay yëf waaw dafa bari ay yëf tajwid am na ci ijaaza rasm am na ci ijaaza muy mbind tafsir am na ci ijaaza euh, tajwid am na ci ijaaza wars xafs qaaluun euh, euh, wars xafs qaaluun am na ci ijaaza juróom-ñaari jàngin yépp am na ci ijaaza bayaanul quran pour leeral leeral sa njàngin am na ci ijaaza maanaam fanweeri ijaaza am na ko ci alquran te ñi ko ko defal ñépp dañ d'accord ne ci ñi raw ci fuuta lañ bokk ci xaal boobu la Seydi Hadj Malick jànge mosu ci boole leneen bi muy am 21 ans sëriñ Abdou nee na bi muy am ñaara fukki at ak benn loo ko laaj ci luy ñuul mu wax la ko ba wax loo ca xamul bi muy am ñaar fukki at ak benn 21 ans nee na loo laaj Seydul Xaaji ci luy ñuul ci bind dana la ko wax amul benn xam-xam boo koy laaj bu dul dana la ko tontu amul nee na ci la commencé jaaxal ñëpp mu ne léeg-léeg nga gis ku ñëw gàddu téere di jàng si fekk daf koy ñam mu ne waaye ci ñam boobu lay fafee toog mu ne ca la toog ndar nag di jàngale di jàngale boole jàkka ji ma def ci benn entre ndax tafsir ba mu fa njëkk a def moom Cheikhul Hadji Malick fanweeri mbubb la xottilu bër bu set benn mbubb te ci kaw min mbar bi lay toog ñépp toog ci suuf alaaji Ahmad dem bu sookoon fekkee na tafsir ba bi tafsir bi di jeex bi mu desee ñetti fan mag ñépp a wànnent ku ma ko daan ñëw ci tafsir bi rek wànnent nga ba mu des Maodo <laughs> nga xam ne du tafsiru kese kese xoolal ni nit ñi ñeme alaaji ahmad dem nee na Maodo toog na di tafsir am ku yëkkati loxoom ne ko si da juum wallahi mu ne Seydi Hadji Malick ne ko jërëjëf dal di meebu bu jekk wàcc minbar bi toog ci suuf jàkkaarloog moom ne ko yéegal nga waxal ma fi ma juume waa ji sol mantoom yéeg ca kaw ne ñonkoos to ne ubbi leen tafsir yi ñu ubbi mu ne ko fii nga juumee Maodo ne ko xanaa xaasiyatu saaw yi nga yore mu ne ko waaw mu ne ko borom téere bee juum xam nga fan la woon ah, danaa leen ko wax tey te ñiy nettali ñépp doo dégg ñu tudd ko wala ma ba waaw kañ ñii ñii nettali yëpp doo dégg ñu tudd ko ña ko fekkee ñoo ma ko nettali man Alaaji Ahmad dem këram laa jàngee soo ko loolu moom kenn du ko werante xanaa doomam bu ñuy wax Abdou Salaam dem moo ma jàngal moom Abdou Salam bàyyi ma ko jàngal mu door a dem Égypte jàngee fa alaaja Ahmad dem bi muy gaañu sookoon ci sama kanam la may na ma mburoog suukar ba tàyyi waaw dem leen sookoon ngeen laajte ndemeen dëgg la wala du dëgg wala ngeen woo xalifaam bi ngeen laaj ko maam Omar Ngalu dem moom fa la ko fekk Alaaji Ahmad dem ñaari doom la tuddee Omar kenn ki Cheikh Omar Fuuti yu kenn ko Omar ibnu Xattaab ñaari Omar la am ñoom ñëpp a ngi dund kenn kay xalifa bu kenn ki gaañu woon kenn kay toog ñoo toppante moo tax kii di xalifa tey ñu naan ko Omar Ngalu dem moom la tuddee Cheikh Alxaaj Omar Fuuti al Gadawi Alaaji Ahmad dem fekkee na tafsir ba xam nga ban téere ban aaya la woon inna hada axi lahu tisun wa tisatun tisun wa tisuna naajatan wa lii naajatun waaxida fa qaala akfilnii ha wa azzani fi lxitaab qaala laqad zalamaka bi suaali naajatihi ila niaajika laqad zalamaka bi suaali naajatika ila niaajihi la in wa in la in kathiran min alxulata la yabguuna fi l ard yonent yàlla Suleymaan la woon yonent yàlla Daawuda fa fahamnaaha suleymaana fa fahamnaaha seydul xaji maalik Maodo ne ko saawi yi nga yore xanaa haasiyatu saawi mu ne ko waaw mu ne ko dafa juum waaje it ku baax la daal ne ko si xameewu ko woon noonu kon fii ma toog ndëkkate yaa fi gën a yell daal di wàccaat ca suuf jox ko Seydi Aji Maalik loxo ne ko ba yow mal xiyaam kenn dootu fi toog ku dul yow ndax ñi ma raw ci mbooloo mi wu bari wuñ ndem maa juum waxuma la keneen kenn dootul jóg si toogal fii xam naa moo doon gërëyee ba it nga <laughs> gars yi dañuy gërëyee gërëyee waaw te xam naa tur ba de waaye du ko tudd Maodo ne ko lu tax ngeen di jël ni aaj yi di ko firee jabar xam nga tafsirkat yépp dañ ne soxna la dañ ne yonent yàlla suleymaan moo amoon yonent yàlla daawuda moo amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent gis kenn ci surugaam yi xemem jabaram xoolal wax ju bon jooju ci ab yonent gaa yu bari noonu lañ koy firee de te moo tax maam mbuubu jaw ca kaw la doomam maa ngi jokkook moom démb Mansour jaw xam nga ko waaw ah, Mansour jaw mooy caatam il est né en 66 mooy caatu maam Boubou Diaw maam Boubou dund na téeméeri at ak mu ngi gaañu 1977 à Kaolack muqaddamu Seydul Xaaji Malik la ci ñu Maodo tegoon Kaolack ci la bokk moom maam Abdou Hamid Kan doom ji maa ko may jabar caatam démb rek ñu ngi wax téléphone ma ak moom ah mu ne ko maam buubu yow nag moo daan def tafsir ci jàkka ja bu daan tafsir bu yeggee ci innal munafiqina naka naka sénégalais yéen ñëpp innal munafiqina nu ngeen koy firi naka naafeq mësu ko fire naka naafeq innal munafiqina naka sénégalais la ca topp yëpp mu teg ko ca nag fii darkil asfali ñu nga ca kàmbu safara mi na naari ca safara gars ni ko déet góor gi yow sénégalais nga mu ne wax leen ma jikkoy sénégalais mooy ki lay ree te bëgg nga dee suba nii la ko daan waxee mu ne jikkoy sénégalais mooy ki lay ree te bëgg suba nga dee nii la ko maam buubu jaw waxe ki lay ree te bu sañoon suba ñu rob la mu ne koo koy sénégalais du noonu kañ mu ne koo koy sénégalais ki lay rey te bu sañoon suba nga dee mu ne kooku mooy naa feq gi mu ne te ñu ëpp ci peuple sénégalais bi noonu lañ mel kon wax na dëgg xam nga tis un wa tis una naajatan si mu ne leen lu tax ngeen firee ko jabar dama koy tënk rek mu ne firiwut jabar naaja la firi nañ ko bàyyi ci contexte bi mu nekk naaja la mu ne dafa am ñoo xam ne dañu bëgg alal te day feeñ da ngay gis ko am téeméeri kër di xëccoog yow benn parcelle dëgg la wala du dëgg te fekk am na ay kër mais yow du la bàyyee mukk parcelle bi am na koo xam ne ay million mu ngi ko yore waaye sa mille bee ko tere nelaw du la bàyyee weccet mukk ah inna eh, yuhibbuna al maala hubban jamman nit dafa bëgg alal mu ne ko loolu rek la mu ne ko la indi wax ji nag waa ji dafa am juróom-ñeenti tëng gëlëm juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mbokkam mi nag am tëng boo xam ne ñépp a ko yéem ci taar ak rafet mu ne ko jaay ma ko mu bañ mu lëjal ko witt mu bañ mu ne ko soo ma ko jaayoon nag dinaa ko nangu par la force walla ma rey la waaye yoon yàlla Suleymaan wàcc na yonent yàlla daawuda wàcc na fa mu doon attee ca maktab ba maanaam tribunal ba wàcc na fa dem këram di noppalu waxtu tisbaar la ñu yemuñ ubbi wuñ bunt ba dañoo tëb miir bi fekk ko ci chambre à coucher waa ji ne dagaj waa ji ne dagaj mu ne ko maza mu ne ko inna ak axi wax ji di ko déggee noonu ku tiit mooy wax yonent yàlla Suleymaan tiit ne leen lu ngeen may fekkee ci sama chambre à mu ne ko inna hada axi lahu tisun wa tisuna najatan wa li najatun waxida kii sama mbokk la mu ma sonal juróom-ñeent fukki tëng ak juróom-ñeent am na ko man benn bii rek laa am mu la jël ma huit ne naa ko jox sama benn yonent yàlla daawud ne ko laqad zalamaka bi sualika bi sualika bi ila niajihi yàlla na jibril demal lu tax mu déglu kii mu wax moom kese te dégluwul ki ci des loolooy wax bi injustice boobu rek la ko yàlla rapproché mais ñaar ñi ñëw kañ da ngay déglu ñaar ñëw est-ce que dégg ngeen version keneen bi ci alxuraan déggu leen ko dafa daaneel rek mu ne ko laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi yàlla na jibril demal lu tax mu ne laqad zalamaka dëgluwul keneen ki ñaari kan la dëglu na kii dafa waroon dëglu kële. moom mi war a àtte tribunal kañ boo demee juge bi day dëglu ñaar ñëpp loola nag fa xararaaki an lii rek la mu sujjóot ne yàlla baal ma dama juum Maodo ne ko lii rek la de waaye du jabar ndax ab yonent maasuum la mënul sax mooy yàlla su ko bëggoon du ko mëy du ko mën ab yonent bu bëggoon sax mooy yàlla du ko mën ndax yàlla mooñaalewu ko ko leer na yonent bu mu mën a doon dalee ca maamu aadama ba ci rasulullahi 124 mille yonent yépp ku ci bëggoon a mooy yàlla doo ko mën ndax maasuum lañ yàlla mooñaalewu leen ak mooy yàlla bu mën a doon ci xel ci xalaat ci physique mënuñu ko seen xel sax du du xalaat mooy yàlla seen xol du xalam mooy yàlla seen physique du ko def moo tax ñu tulee leen maasuum buñ ko bëggoon mënuñu ko si jaaju Maalik ne ko koo xam ne maasuum la noo mën a waxee wax ju toll nii teg ko ci dara ngóor si ne ko xaw ma ko woon mu ne ko boroom téere bee juum mu d'accord fanweeri mbubb la Maodo yóbbu keroog ñaari xisib yu ne benn mbubb muy fanweeri xisib ñaari benn mbubb muy fanweeri mi jeex mag ñépp wànnent ku doon seetaan mu prix mi rek keroog wànnent nga ba mu des Maodo ba ci Alaaji Ahmad dem biñ ko laajee mu ne leeru alquran ji doon roof la seen bët yi àttanu ca ndam